mu ci te muy propriété yàlla teg naa ci sama loxo waat ni mosuma gis ku yàlla waajal ni Cheikh Seydil Hadji Mansour عرفت الورى شرقا وغربا ولا أرى مثل فتى المنصوري ومصمم تيجيس كي يلا واجد واجد اللي شخص بحاجة محمود المنصور مصطفى الفتى فات بيجي في سائر الورى فمن نبرم تتعب عن الدوسي

por ولا من faydihi bil banani ba ko jiitu am جيتو دي قال علي مني في الفداك أم أنا جاني فلترك النبي ولا وليس يعلم شاني فمنكرا حزب شيخ تجان حزب كباني دعت قولك هذا فما للشيخ يدين كلام ومنكر حب شيخ الدجال حز يكباني من هنا لقور اللول لأن الشيخ السقالي نبري خمجي نولي ندنا نمت تبارا شيخ الحاج عبد العزيز موكو دنا جيس تسدمي كوتي دا جوي بغا نيو مو جوخ لا بارا مام بو نوبو bëri na lu ko daan def ndekete yoo moom daf koo doon nee na sidna Cheikh na Ahmada Tidiane li mu am ci moom Cheikh moom moo ko nampal ba mu màndi mais lu ko nampal ndekete yoo baaraam bala loolu la ñu réere ndekete dina la jox ba màndi ci leer nit dina la jox baaraam nga sax baaraam ba màndi ci ci xam-xam nit dina la jox baaraam nga sax baaraam ba gore ci ci safara nit dina la yëpp dafa bëri loolu si tarixa bi ñu bëri réeré nañu mbir ñëpp lañu ñu ma romb bu joxanteeg ñoom loxo bëri na mhm. mais bi ma egsee si Serigne Mouhamadou Habib dañu def muaanaqa ak musaafaha mhm. secret bu rëy la sirru nazarati mhm. sirrul musafahati, sirrul muaanaqati bàyyi ko xel njabootu Cheikh El Hadj Malick foo leen gis ñu nuyoo dinañu faral di tàppanoo mbir la secret la bu dee ci secret tariqa bi waaw kay su la neexee nga dëggal soo mënul dëggal nag famut bi daa intihaay na nga شكر شكر ما يسقل دي ميت فمتول يا من يروم نظيرا نول لقطب فرد الزمان الشيخ رحمة الله شريف رضي الله عنه نمو خير حتى امتلأت جفعاني وصرت ذا يماني شيخ لندن نمبا بوم بوم بوب عندي نامانة ويكسلين لدول مو يا كعبتي وحطيمي مفرقو بايسان يودال يا اسم كعبة قش مكة وحطيمي يا اسم حطيمي جرق يرق لجرق كعبة وزمزم يا اسم زمزم وأماني يا اسم ركن اليماني كل شيء يا من يوم خمنتني على يا جنك وكل يوم تسرمسي naka nga kawe kama ala comme ni mu بدي farqadaani biddiw la ci ñii nee nañu mooy étoile polaire jërëjëf jazakumullahu xayran. mooy daal taalibu Cheikh taalibu Cheikh yéen a ngi. min laaxiqin wa qadiimin. inni. bi shawqi kafaak. nee na nee na cofeel gi mu am ci Cheikh daf ci jeex tàkk tàkk tàkk tàkk moom Cheikh Hadj Abdoulaye te ba muy def li yàgg na nee na nag bu ma kenn yeddati bu ma kenn critiqué bu ma kenn waxati lenn ci sopp Cheikh nee na man dama dof ci Cheikh. waaw Aliou bi muslim إذا أنا منجاني في ذاك ci loolu أنا manajani li mu mujj wax ak man ñaanal ma rek ma sopp Cheikh na Ahmed Tidiane ولست أسقي لواش ولا لله إلا عيني كل يتدا سيف الكنين واي من أبد سوما يدي توني من لا أستبيق غراما ولست بالمتواني كل فوق لن ينيو سرين حبيب لك ak ziyaara mu yóbbaale ñëpp géew man tey am naa ni képp ku ma fi nuyu ci làmmiñam lay jaare waaye man moom laa nuyu ndax maa ko xoolee bët Cheikh Hadj Malick léegi nee naa ko fii bii nga ma jox day terewul a nekk Habib terewul a nekk sëtu Cheikh Al Hadj Mouhamad Al Mansour terewul a nekk sëtu Cheikh Al Hadj Malick daf ko yokk na nit li mu am rek la mën a joxe ku amul daraja mënoo joxe daraja. Mhm. léegi li ma dugg ci barab am ku bëgg a jóg ka mu ko noonu nga pël yi mu ne woon de yaakaar naa ni tànt man rek man maa fi war a jóg nga toog. ma ne ko moo tax soo soo jógee ñëpp dinañu jóg yow nga toog. ndeysaan. soo jógul ñu war a jógal ña war a jógal duñ la jógal. Mhm. kon nag si min xormatin wasalaam qad wasala mhm. ci am cër di ko joxe mhm. ku yëgg ca yàlla looloo la yëggale mhm. ku dog ca yàlla looloo la dog ah, kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñun daal tabaarakallah macha allah suñu ñaan nangu na suñu yaakaar dëggu na suñu xel dal na am na doom yoo xamante nii da nga leen di tiitaroo ba ilaa yawmil qiyaama léegi dee naa ko ne ko de catuwuma la yàlla bu ma la catu waaye daal ku am isti ku am constance la ku am istiqraar la hmm. habib ba ñu xàmmee nga xàmmee nii nga mel boobu léegi man nii laa la gis nga mel li gars yi naan bul changé hmm. mooy sama Abdou nee na nit ku nekk noo mel jig na la hmm. kàccoor bi sax kàccoor jig na ko waaye yow itam nii nga mel jig na la ma ne ko dinaa dégg ngay ngay firi ay baat di ko méngale ci alquran mu dëppoo lool ci jamono Cheikh Al Hadj Malick ci waxtaanam laa ko doon dégg su demee ba ci maam alxaaji Malick méngale ko fa ko yàlla tudde ci alquran muy qul illahumma malikal mulki Malick duggul dugg na kay tuuti Malikal ngoog jàngal fatiha Malick yi mënoo ci dara su ko ko fi wuutu Serigne Babacar wala Sidi Ahmed sax ma demoon ca guerre ba <laughs> naka la ko waxe yaati min baadi ismuhu Ahmad ñëwul waaw ñëwal ñu dem ci xalifa ba ndax sëriñ Babacar ginnaaw gi la ñëpp xam bi El Hadj Malick demee ñëpp xalifa lañ d'accord ni moom la tudd xalifa yaa Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan xalifa ñëw baax na kuy topp bay Alxaaji Mouhamadou Mansour moom nag moom mooy mooy waaje wa inna jundanaa la yàlla wax suñu armée armée armée islamique bi ngay dégg la humul mansuurun mooy ñoom bàyyi mansuur yàlla nee na suñu armée ñun yàlla mooy ñan mu ne mooy la humul mansuurun innahum humul mansuurun wa inna jundanaa la humul gaalibun lu mu ca teg bàyyi bés daba eh, waay waay ba yàlla ubbee yi ñamu ubbi ba pare baal ko bàkkaar yi jiitu ak yi mujj yëpp ba ca mujj ga nee ko wa yansuraka allahu bañ ci ñoom كبيرة ليه ليه نصرا كريما ليه ليه نصرا عزيزا اها انت إيه، إيه، باي محمد الحبيب ابي بلادي مو فاهم نيلا فون كوي مينغل لك موي فا يالا دي وخي وخو جبران غولاي بي رسول الله أه. قل أه. يوم ما عثمان وخال غاي ني سي سوبي دبار ان كنتم تحبون الله أه. يا رسول الله ني فاتبعوني يا اللي نينا توبلين رسول الله يا يحببكم الله يا اللي بقلين مي حبيب مي جاتو مم الله جمالي مالي كل حبيب لي يلا وقتي القران اك لي يونتي بوخشي حديث موم لا كين مانو لا دي تي كين دوكو دي ديبا موك لنين لو في نيت وقتي سي خيل مو رافيت لاكو تك دا خيل مو رافيت فوكو بيك دا فاي دبو اك القران اك سنه مالي كو بولي سي دارا جيل fekk loolu ma ne allahuma la adru waaye rafet na te yu ma ne la te bu ma la woo ma ngeen nga kontaan waaye sama xol bés may seede rek may dugg yaa ngi naan fatal la gaa yi ñu ma na man te xaw ma ko dimbali ñu wax ñu luy fatal sëriñ bi There's a waaw waaw wallaahi. suñ leen gisatul ci kër gi rek kër gi yàlla nekkatul. borom mbubb yooyu fii. ñoom ñooy wax xaalikul Cheikh Al Hadj Malick loolu ci ay mag yu mag laa ko dégg ñu wax. kon buñ leen wooyee ba buñ leen doyee nag. buñ leen tëral leen ko suñu. lay si wax leen teg rek. lay si wax jërëjëf si.